en premier de la mi-journée sur la 7TV. Euh, ñu ngi lay gërëm sa disponibilité euh, comme dañu da xam naa sa jot moo la ko mayul sinon fii ngay teew mais rek euh, terewul mën nañ jokkoo ak yow ci téléphone bi nga wax ñu situation dëkk bi ak tànk jàmm yi nga xamante ni yéen a ngi koy dox yéen ñi bokk ci comité des facilitateurs fan ngeen ci toll ak lan moo leen tax a jóg ci dëgg-dëgg. waaw lenn ci li nga xam ne ji moom laa njëkk wax mooy maa ngi sant yéen ñi ñu jox euh, occasion ñu wax ci waxtaani réew mi xam nga boo xoolee Alioune Tine euh, dama ci mun defee benn tegtal bu taw mooy keroog bi ñu demee tubaa seet Issa Mountakha li mu ñu njëkk wax mooy bu mu gisee Alioune def na ko ah Alioune yow saa bu ma la gisee tànk yow jàmm ngay loolu la nga xamee loolu loolu la loolu la ko njëkk a wax su fekkee Alioune Ndoye mu mel ni kuy présenté suñ suñ Mountakha ne ko ay ah, non non Alioune yow xam naa lu baax yow saa booy dox rek waxi jàmm ngay dox réewul tam Alioune si wax rek li ñu jóg ci biir loolu mooy réew mi dafa toll foo xam ne jii kat bu ñu ko waxtaanewul xëcc ndànk-ndànk xëcc ndànk-ndànk day def ba mu yàgg yëpp boo dagg daggandoo réew yu bëree bëri ci lii lañ jaar Eh, benn foyer bu ndaw tàkk fii nga moo nëpp nëppal mu fay tuuti nga dem dóob baa nga fa léeg-léeg muy tàng bàyyi dabaat feneen day dem am na xar bu nekkoon ci biir yëguloo ko ngelaw li ñu ëffandoor ko yëpp tàkk door loolu la ñu wax nañu si Sénégal toll ni dafa métti léegi nag buñ ko waxtaanewul dina doy waar bés bu rek ngeen dégg ñu naan waaw na wax na kilifa yi wax na kilifa yi wax te na kilifa yi wax nañ waxin boo xam ne nit ñi dégguñ ko ndax it kilifa mënut a bëri wax ci surtout bu dee wax politique kilifa du ci gën a wax du ci gën a dëkk bés bu wax bu waxee ñoom war a waxal bu ñooñu déggee baax na bu ñooñu déggul moom xam ne waxoon na la mu war a wax boo ko xoolee buñ ko buñ ko lay demee tawee deux mille vingt et nañ fi bu demaan ba ci kanam yeneen kilifa wax nañ waaye bii nii dafa fi mu toll Alioune Tine moom si boppam moo am xalaat bi mu seen ay ñim jàpp nañ xëy na ñii am na kenn ku nekk ci ñoom am nañ ko mën a waxal maanaam ci ñiy wax ak média ñiy wax ak ñeneen ak ñeneen waaye teewul ñu ñeen nañ seeti kilifa yi dem nañ dem nañ Cambérène euh, pour pour pour pour sëñ bi dinañ dem feneen nañ dem feneen waaye même ci biir loolu tamit teewul ay yeneen waxtaan nañu ci suuf ak yeneen personnalité yoo xam ne ji ñeen ñu ngi ci biir politique ñu ñi jege nañ politique ñeneen ñu ngi civil ci feneen waaye ñu bëri sax bés bu rek ñu am ñu bëri ñu oo dañu ay di ngeen def baax na kat ñun ndax mun nañ cee bokk kon ñi ci bëgg bokk bëri nañ loolu mooy wane ne kon kat Sénégal yi dëkkee lii soxla na leen bëgg nañ cee bokk na mooy nit ñi ñoom nañu te loo xam ne dañ leen wax ne ñun ñëpp mu teel leen te départ bi amul benn dërëm benn percin ci kenn di joxe kenn mu teel leen ñu ne waaw mais tréewul nit ñaa ngi bëgg ñëw mooy ne kon nit ñi jàmm leen intéressé kon Alioune Tine di waxoon moom la waaw déggaatu ba de Déganement, c'est pas de retour là, j'entends rien. Allô, moi j'entends plus rien là. doyen. voilà dégguñu xam naa ñu bàyyi waa régie ñu réglé. oui ah d'accord là vous nous entendez. ma ni euh, tànku jàmm yi. wax ngeen wax ngeen li leen tax a jóg mais naka ngeen ko fas yéenee doxe kan ngeen ci war a kan war a waxal wala yan euh, yan euh, yan mbir ngeen tegagum seen kanam war ci cee sóobu directement. ndax jar nga dégg ndax nga dégg nga ne ne demoon nañ ci Touba wax wax naa ko dégg ngeen ko loolu. waaw. Mm-hmm. dégg dem nañ Cambérène. waaw dégg ngeen loolu. Mm-hmm. maa ngi waaye terewul ci suuf am na yeneen am na yeneen politique yi ñuy waxal. Mm. am na yeneen organisation yi ñuy waxal. am na ay chancelleries yoo xam ne ji euh, bokk nañ ci ñi ñuy waxal loolu yëpp pour ñu xam ne Sénégal du du benn euh, réew moo xam ne dafa topp moom rek dafa am ay partenaires ci àdduna si fenn fu ne ñu dañuy donc li tax yëf am solo mooy ñooñu kilifa yi am na si ñoo xam ne ji mboolem lañ leen wax dinañu ko gën a xam wala boog am nañ ci lu bëri waaye mooy li ma la wax na ji nit ki dafa am foo xam ne fa la kàddoom mun a yem maanaam ci bu koy génnee waaye bu xasee bu génnee mun naa sori lool waaye nag dëkk yi di wax. du si léegi nag bu ko defee dañu naan nguur gi tamit lu ngeen ko wax parce que tamit nguur gi ci wax ne waaw bu leen bu leen wax ne bàyyil ba ki ñuy dóor bu leen bu topp da ngay wax ak kii dóor tamit. Hmm. tamit ñu ngi wax ak bopp wax ak kii dóor am na ci solo wax ak ki ñuy dóor am na ci solo wax ak kii seetaan am na solo te fii Sénégal toll nii dafa am euh, loolu maa ngi koy nettali fan ci ay nit benn koo xam ne ci ay jamono. dana am ay grève bu yàgg bi ci duggoon ba mu liggéey fi commencé sonn ñoom ñëpp kii ma laaj kenn ci ñoom ñu fay ñooy grève may leen lu mu ne ñun kat fi nekk nii yii fi dafa doy waar ñii xeex dañoo sonn ñii seetaan sonn ñii atte sonn <laughs> ma ne ko buñ ci àggee foofu bu boobaa ñun bu boobaa dañuy dañuy yàkkamti ku leen atte hmm. fii ñu toll nii hmm. waaye kenn ku nekk sonn nga hmm. waa kër Ousmane Sonko sonn nañ waa kër président Macky Sall sonn nañ ñëpp sonn nañ te am ñoo xam ne jii li ñuy dégg Sénégal ci coono li ñuy dégg Sénégal ci xeexoo li ñuy dégg Sénégal ci ay Sénégal ci ay fitna arrangé wul Macky Sall arrangé wul ñu topp ci Macky Sall ñoom ñi bokkal arrangé wul kan ci réew mi donc ñun ñëpp bu boobaa waxtaan wi day yomb boo gisee kii mu xam ne sonnoon na nga ñëw dégg ko naan gis keneen ki boo xam ne ji am yëf yi baax dem bu baax te wax moom. Hmm. loolu ci lañ nekk ni ñun xam nañ ne ñi société bi ci la coono léegi ñëpp a sonn. waa ko waxee ko waxul sonn nañ waa kër Macky bu ñu ko waxee nañ mais réew mi amul ci ñoom rek dafa euh, yëpp dañ ci doon koy bon merci doyen dafa mel ni wax ji leer na. Hmm? wax ji leer na ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax. Euh, ñàkkul téléspectateurs yi aussi jëlee nañ ci njariñ. Euh, donc joxante dig daje rek xam naa buñ ñu la soxlawaatee yow moom ci kër gi nga bokk.